allo. waaw. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. Euh, bi nan la. Binta la. waaw Binta noo sant. parce que dama ah, kon garaawul. léegi dañu bëggoon xam euh, yow euh, yan jafe-jafe nga nekk di dund foofu parce que dañu ni yow cas cas positif nga ci corona bi. waaw. yow ban fan fan nga nekk nii. actuellement maa ngi clinique du col. Mm-hmm. ndax sama ñaari doom ñoo fi nekk. Mm-hmm. yaa ngi clinique du golf. du golf waaw. foofu lañ la eh, interne. foofu lañ ma interne ak sama ñaari depuis kañ. depuis le vingt 23. depuis le 23. waaw. Euh, léegi yow dañ da nga ñëw rek ñu yóbbu la clinique du golf wala nu mu demee noonu. non non dañ ñoo yóbbu woon hôtel ba pare. Mm-hmm. sax ñoo indi après ambulance bi jël señu mhm. indi ñu clinique bi mhm. léegi yow lay yóbbu hôtel ba bu fekkoon na nga sentir dara ci sa yaram waaw nañ bopp buy métti ma doom mhm. ak gorge buy métti waaw ñaari symptômes yooyu ngeen amoon loolu la ñu amoon ngeen yaram bu ak biir buy daw man moom après laa am biir buy daw sama doom nag amoon na fièvre. Mhm. léegi jamono ji nag lan mooy seen problème foofu. dégg nga. ma ni nii lan mooy problème bi foofu. instant bi luy problème bi foofu. Mhm. am na ñaari tour de garde yuy ñëw fii. médecin bi ak ñi di joxe lekk bi je crois waa croix rouge la. Mhm. dañuy lekk bi. la fois passée dañoo grève. treize mooy deux lañu indil ndékki trente minutes plus tard bu tëdd indi tey tamit aussi def nañ pareil cas présent may wax ak yow nii ndékki bi ñëwagul buñ leen laajtee ñu ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw malaat yi nekk fii dañoo désespéré mhm. waaw mënuñoo euh, jël suñuy garab sans autant que ñu lekk il faut ñu lekk ba pare te dañu yor ay xale kon yow bu ma la déggee démb nga gëj a lekk te waxtu bi fi mu toll nii léegi une jot. te ndekkeegoo leen. waaw seen ay garab nag yéen a koy jël instant bi te lekkoo leen. jël waaw. Mhm. léegi ndax euh, waxtaan ngeen seeg médecin yi aussi. ku ñu laaj man comme si posé posé naa leen trois fois question ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw laaj naa la ndax da ngeen ñu ne ma non ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw mais wax lu ñu la wax li am. Mhm. waaw ñan ñoo ñan ñoo grève foofu. en tout cas di joxe léegi ay gisagu leen ñoom ñoo grève. ah ñoom ñoo grève bañ a ñëwati. ñoo bañ a ñëwati mais médecin yi ñëw nañ ci suba ba jox ñu garab def ñu jëloon ñu suñuy température. Mhm. waaw. léegi toppatoo bi war foofu noonu ci côté euh, seen seen seen faj mi ngi mi ngi mi ngi jaar yoon. mu ngi jaar yoon faj bee ngi jaar yoon. Mhm. léegi mais daal ci côté lekk moo des. moo des. Mhm. léegi yow an doom yooyu nga nekkal foofu. ñoom ñu ngi si jaam bu baax. ñu euh, ñoom it ba tey jii démb lañ gëj a lekk. ba tey démb lañ gëj lekk. amul ñeneen ñoo xamante ni woo ngeen leen euh, à part médecin yi. instant woo ba kenn bu fekkee da nga bëgg dara mën ngaa oo sa ñu indil la ba muy yéeg. Ah, ñoom ñu seeg sa kër ñoom ñoo ñoom ñoo leen di indil lekk. soo bëggee dara mën nga woote sa waa kër lu mu mënti doon ñu indil la nga jox leen fa ñoom ñu yéegal ko indil mhm. mais matuka matukaay yi war foofu ndax euh, ñu ngi koy doxal. waaw wàllum médecine bi moom ñu ngi doxal seen i liggéey moom. Mhm. mais wàllum lekk bi si boppam. Mhm. malade xiif moom mënu ko dañoo war a lekk. Mm-hmm. ndax léegi le de ngeen fa nekkoon ba léegi est ce que ñu ngi leen di defaraatal test ngir xam ndax feebar bi dañ na ci seen yaram wala defaraatal guñ leen test. ñu ngi ñuy defaral test moom. à chaque fois ñuy defaral am na si ñu si mm-hmm. mais yéen yéen a des. waaw ak yeneen mm-hmm. ñu léegi yéen ñi nekk foofu noonu nombre bi ñaata la. nombre bi dëgg yàlla mënu kaa compter. xaw ma à peu près ñaata rek. mais kenn ku nekk ak sa saal la wala. par exemple man moom sama chambre ak samay doom. Mm-hmm. am na chambre yoo xamante ne trois lits moo fiy nekk am na yoo xamante ne quatre am na yoo xamante ne mm-hmm. Mm-hmm. léegi yéen seen sa sa dernier mot lan la. juste li ñuy def daal nañ ko bàyyi du ñu jox ñu lekk parce que ñu waxee dañu feebar nañu jox lekk ndax ñu mën a lekk ñu faj ñu tane ñu génn fii ndax ñeneen ñi tamit ñu mën a am place ñu faj leen. boobu ñu ñuy garder fii ñuy actif. Eh, jërëjëf Binta Dakar Buzz mu ngi lay jaajëfal te di la wax ni incha allah dinañ ci def eh, ay tànk dinañ ci dox daal ay jéego yu am solo incha allah.